coow bi am diggante comité de développement sanitaire bu centre de santé Wakhinane Nimzatt ak agent yi fay liggéey jeexagul gannaaw bi nga xamee ne toiture salle de garde bu maternité bi dafa jotoon daanu ndaxte gannaaw bi nga xamee ne semaine bii de ñi ngànk CDS bi dañoo jotoon génn doon ngànj agent yi ñoom de tuntu nañ ak seeni naataango yi nga xam ne dañ ci jot am gaañu gaañu di wax ne ñooñu de waxu daanu sareet rek la ñuy wax ñoo xam dañoo fekkee yi dundandoo ko ak ñun ñu dundandoo ko ñun ñëpp donc bu euh, waxee benn blessé moo am wala bokk affaire yi soofantal ko ñun daf ñuy dépassé. loolu amul loolu du dëgg ndax bu loolu amoon duñ ñu yabal ci ambulance yóbbu ñu ñu def ay radiographie te bañ koy def it xam naa ci ëllëg sa la doon comme ni ko suñu collègue sage-femme bi waxee. woowee immédiatement sax ñëwuñu. donc li fa xew ñoom li ñuy wax liñ leen raconté la rek te et li may gën a déplorer ci wax ji mooy ñàkk cër yi ñu jox ñi nga xam ne ñoo fay liggéey. metti na de parce que sam bopp bi ba tey bu may julli damay am problème bi ci bopp la ma dal bi ma dalee nag dama tiit bi ma tiitee ma miir. liggéeykat yi ñoom am mbetteel bi nga xam ne jot nañ ay mise en demeure ci seeni responsable ci jamono boo xam ne nee nañ dañuy dund ay jafe-jafe yu tar ñoom ñu ngi sàkku ci autorités yi daal di tëj maternité bi ndax ñàkk kaaraange bu mu am. pour des raisons sécuritaires le temps que ñu utal ñu local boo xam ne ñun moom la ñuy kiiwee parce que toit bi daanu aussi daanu ci ñaari am dégâts matériel bi par rapport ak suñu ñaari personnel yi. Euh, carrément les raisons ne sont pas valables pour que nous inspection du travail war na donc ministre de la santé lancé nañ appel bi mom tamit vraiment mu ñuk mu sécurité personnelle bi sécurité patiente ak table d'accouchement yi personnel bi ne mu wala malade ne mu ba ndax nañ ko defaraat baaxul. ñu fàttali leen ci guddi ñaari fan jàpp ñetti fan ci weeru octobre bi gannaaw bi nga xamee dafa amoon taw bu métti ànd ak ngelaw ci la toiture salle de garde bu maternité bu centre de santé Wakhinane Nimzatt jotoon màbb booba léegi coow laa ñu mel ni turlix maale diggante liggéeykat yi ak ñi nga xam ne ñoo ngànk comité de développement sanitaire bi nekk ci centre santé bi